maam borom Touba kazalika yaakaar naa toujours ma wax ko fii ngeen dégg ko ku ko ci weddi rek géej gaa ngi nii di bomb aca géej gi moom mu ngi nii rek ku weddi mayu sëñ Touba demal rek waxuma la der sax der sax gudd na jëlal gaal rek ah Diop Ndiaga de moom fële Kër Moussa maa ko daan defal gàmm moom bés dafa ñëw ne leen mën naa julli ci géej gi ni ko sëñ Touba defee woon. gars yi foog ne day caaxaan te moom boobu jàngale la ci jubloon maa ko daan defal gàmm moom Jóob Njaga ca Kër Moussa ndeysaan même ñetti taalib yi xaw ma topp ko mu ne ba ci géej gi génnee der bi rek sànni ñëw taxaw rek gandax gi eh, kii duus boole ko der bi sànni fële mu piti piti piti piti ba génn daal dina yéen laa doon jàngal rek ku dut sëñ Tuubaa boo ko defee nii rek nii mu ma def nii rek la lay def nii toppandoo mayu jàmbur amul solo ah, xaaral li la yàlla may rek waaye mayu jàmbur mënoo ko toppandoo mënul nekk jàmbur mayu jàmbur la tudd mënoo ko toppandoo mënoo ko toppandoo wolof sax bañ na ko ba ne toppandoo sa maas ah toppandoo sa maas ah, ah diiroo koo yemal mbagg ah kon nag mag ñi raw nañ ñu ba noppi nañ topp ci seen kaw rek ah lu ñu rotle ñu for. donte ñoom sax duñu rotle dara waaye luñ la yéene ba rotal ko nga for xamal ne ñoo la ko yéene rek rotal ko bëgg nga for ko wala léeg ñu ne la jàppal ci lii nga doy loolu la waaye bu leen diir mbagg bu leen def morom waxuma la nag di leen xas ku ko ci def yaa ngi naan poson booy bàyyi di dee mag mu doon ci mag ñi nag ku leen ku ne yaa ngi naan poson booy bàyyi di dee kenn mënu ci dara foofu laay jeexalee ñuy jublu ci nettali naa leen ko fii Mawlaay Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz fii ci Sumbujun armeel yii ci Sumbujun am kuñ fa doon denc El Hadj Abdou sëñ Abdou waxtaan ba noppi ne acca ñu denc ko yàlla ko yàlla yërëm nitu yàlla bu baax euh, kii euh, kii siise Ahmad Cissé Dagana Seydi Hadj Malick ko tafsiral alquran ne ko sëñ Abdou may ma ci kaddu sëñ Abdou ne ko bismillah am benn patron boo xam ne mu ngi woon ci biir nit ñi duma tudd turam mee xam naa ko kilifa la am na wërsëg bari na xaalis bari nay oto dal nii rek ngeen mel boo laa jël doo waxee ba noppi kenn waru cee teg kaddu waaye jaar foo xam ne Ahmed Cissé Dagana ne ko ah diw beewuñ la de man ngay wax mu ne ko yow di wax kañ mu ne ko ñett yi gën a neex tere naa la ko fii ma taxaw si Abdou ne eh sëñ tiim ma ci mu ne ko Abdou yaay sama kilifa waaye mënoo ci dara def naa ko ba noppi ndax bi may Abdou yàlla nangu na ko loolu nag Ahmed Cissé Dagana moo daan def tafsirul Quran fii ci pom bi. mu ne ko ba ma koy àddu la ko yàlla nangu te def naa ko ba noppi ñett yi gën a neex tere naa la ko fii ma taxaw mooy wér gu yaram lekk gu neex ak say jabar billaahi wal wér gu yaram gu neex ak say soxna am na teggin sax ba ne ko ak say soxna lii moom tere naa la ko fii ba ca kanam yàlla maag yow nag ñu lay ñëpp ne xum ñu jël néew bi dugal ci armeel yi sumb jun rob bay génn bi ñëpp di génn waa ji ci bunti armeel yi mu bépp daanu moom patron bi dañ ko meeb dugal ci otoom juróom-ñaari at ci kaw lalam la tëdd duus sax ci kaw lalam la koy demee ruy rek la mën a lekk amul leneen lu mën a lekk fu ne yóbbu ko fa mënta lekk lu dul ruy ruy li Serigne Cheikh doon wax mu ne léeg-léeg nga saalit ba yegg ci ne defaral ma ruy bu woyof mu ne ruy woyof na ba noppi nga naan defaral ma ruy bu woyof waaw ah, Serigne Cheikh mu ne yaa ngi saalit di mu ne ruy ni mu woyofee àll bi mel nga naan defaral ma ruy bu woyof mu ne xam nga yaa ngi saalit <laughs> wala déet ah, juróom-ñaari at yoo xam ne takk nañ ko ci xaal boobu lay dund ba sëñ Abdou woowaat ko ne ko Ahmed Cissé mais mu ne ko dama bëggoon nga tiim ma ci diw mu ne ko xanaa ma tiim la ci tey waaye du ca kanam yàlla de foofu foog ñu lay ko tiim bi daal lenn la mën a nekk ma baal ko ruux gi dem waaye fekk baalu ma ko ruux gi du dem ci xaal bii lay dund ba bam may neex c'est dañ am pouvoir ci dañ am autonomie réserve bu yàlla jox ñoom awliyaa yi ci yàlla gi dañ ci am autonomie réserve boo xam ne yàllaa leen ko jox ñu am sañ-sañu def ak dindi wala yu bu mën a doon nag muy sëñ Touba muy El Hadj Malick Cheikh Nasser Sadd maam Limaamu Laay maam Bou Kounta Ndiassane maam Abdoulaye Niass ku mën a doon ci awliya yi min awliya Illaahi taala yàlla jox na la pouvoir otonomi boo xam ne dangay def di dindi ku la ca fekk si rek wolof moo bañ ba ne koo fekk ci mëninam xeeb sa bopp wolof moo fekk ci mëninam xeeb sa bopp góor gi ne ko benn tey baax na. mu ne ko jéggal naa ko ñetti fan lañ ci teg waa ji faatu góor gi ne ko jullee bi nag mu ne ah ñoo xam waaye li ma la wax rek Abdou foog ñu lay ko mag moom ci kanamu yàlla lu ma yabee lim ma ma ko wax ma ko wax ñett ma ko lu tax ma ko ko te fi ma ko teg mu ne ko loolu moom ca lay leeree parce que daf ko toroxal devant tout le monde daf ko doon jéem a devant tout le monde te xam nga ne Amath Cissé dagan na ci ponkal yi la bokkoon te yéen ku ko ci xam góor gi dagan ku ko xam fii nii ci ponkal yi la bokkoon moog Amadou Ale Mbaye bii nga xam ne moo defal sëñ Mor gannaaw sëñ kër si lu sëñ Mor am tey ci àddina ci loxol Amadou Ale mbay la jaar te moor Mor nettali na ko ñëpp dégg sëñ Mor nee ñëpp ma lépp lu ma Amadou Ale mbay waxoon. fii ci àddina teg naa ci sama bët yu àllaaxira yi nag wóor na ma ne ñàkk faa dem moo tax gisaguma ko sëñ Mor Diop mu baax nii ci Parcelles Assainies moo ma ko mu ne ma lu ma wax ci àddina rek man sëñ Mor teg naa ci bët lan ma wax ci àllaaxira nag wóor na ma ñàkk faa dem moo tax gisaguma ko mu ma te nim ma waxee ci àddina li may am noonu la ma waxee àllaaxira la ma fay am te Amadou Alé Mbaye ñu ko xam fii bëriwul. te taalibe Serigne Babacar Sy la waaw kon koy Serigne Babacar nañ ànd ak yàlla rek te ànd ak suñu mag ñu baax ñii suñ ko defee rek yàlla defal ñu luñ bëgg buñ xaste buñ ñàññi buñ tuutal kenn nañ bàyyi jaami yàlla yi ak yàlla mi leen bind moom rek a leen xam koo gis ormalal koo gis wegal koo gis teralal li El Hadj daan wax ni su fekkee ne balaa ngay ormal nit xam mooy kan mu ne matatu ko na nga def rek koo gis nga jox ko orma koo gis joxal teggin koo gis wegal koo gis nel waajaa nga kenn du la rëcc waaye koo gis sous-estimé ko ne ah kii de boo demee du waaja waaja dana la rëcc te doo xam kan la ndax mu ngi ci biir nit ñi te yàlla bind ko ci jiwu kenn gisal ne ko def rek fonkal mu dem fonkal mu dem teralal mu dem teralal mu dem soo ko mëni soo ko mënul nga def li yàlla wax qawlun ma'ruf wa maghfiratun xayrun min sadaqatin yatba'uha azan wa qulu linnaasi husnan jeex na yal na ñu ko yàlla defal